na ngeen def ndànk parce que am na ñoo xam ne dañuy lekk seen xaalis. Mm-hmm. mu ne ko ah mu ne waaw mu ne ko mu ne ko ah yow waxoon lu leer ba léegi de. Mm-hmm. waaw mais nag sa affiche la def de sa sa affiche su kii am na affiche bu mu capturé ci yow def ko def ko affiche daal. Mm-hmm. voilà léegi nag mu ne ma boo boo bëggee faju fii dañuy def fétiche xaw ma dañuy def dañuy faj dañuy def lii dañuy def lii te fii la ëppee. sama affice la def. waaw waaw waaw sa affiche la def de. waaw xam nga ne kooku dóorkat la kooku dóorkat la. voilà mais ñemewul nag parce que bu ñemewoon message yi du ko supprimer mais mais lu ma envoyé da koy supprimer. ah lu ma envoyé supprimer ko. moom waaw moom lu ma envoyé da koy supprimer ma ne ko nag man man mii di wax yow jinne moo ne ci man mais. Mhm. xam naa fi ko mën a faj. Mhm. te xam naa ni muy manifesté woo fu ne mhm. dem naa fa nag fu ne amul fu ma demul. waaw yàlla xam na ne sama yaay. tey tey tey rek ak démb. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw dafa am ci sëriñ bu ma ne leen noono non man ne ni du ma demooti fenn fenn di yàq sama xaalis parce que li ma liggéey sama àdduna yëpp dama ko fere ci sëriñ toog. Mm-hmm. kon mënatumaa demati fenn. waaw mënatumaa demati fenn podul Thierno Moule mu faj ma affaire yi jeex bee noonu parce que man seetaan naa vidéo yu bëree bëri mais nag des damay seetaan ba ci biir ma ragal parce que affaire bi day day manifesté wu day ñëw def ay affaire. te dafa bëri doole te damay bañ mu yeewaa kër gi yëngal ma foofu moo tax ma ragal waaw mais waa jooju noonu hmm. dóorukat la parce que lu ma envoyé da koy supprimer hmm. mais man ni mu def ba capturer waaw ni mu def ba déglu suñu appel bi man moom a jaaxal capturer sama numéro wooma waa xam nga xam nga keroog ba sa jinne bi woowee loolu dama ko enregistré dugal ko ci internet bi instant bi moo ci internet bi foofu foofu nag waaw sa numéro dafa rëccoon mu jàll ci internet bi nag. Ah, wala ñu profité wala profité wee quoi di jël di wax. non xam naa man. man gars yi naan naa leen. man xam naa leen. Mm-hmm. fa la jël sa numéro nag parce que. Euh, ki ko dugal euh, dafa waroon maxé sa numéro. moo tax nii nii nii damaa bind jinne jinne jinne jinne Paul jinne laa bind. parce que sinon bu ma. parce que bu ma jëlee sa numéro normal ñii ñi dañ koy dañu nekk di woote. te kerew ba nga may woo sa jinne bi moo ma woo n'est-ce pas kerew sa jinne bi moo woo. noonu la fa demee damaa seetaan boobu boobu damaa seetaan kii bi boo pare ak ak beneen. Mm-hmm. waaw affaire affaire bi manifesté wu waaw. Mm-hmm. ci la ci la doon wax noonu naan ay dama bëri alal ak dama def nii dama soxor soxor bi mm-hmm. moom dëgg la xaw ma alal moom xaw ma ci dara mais soxor soxor na trop. soxor na moom jinne bi. trop. waaw instant bi dama lay laaj yow. waaw jinne bi dafa laa musa woon alal daf la musa woon alal. waaw du ma la fen nag de parce que bi mu moom bi mu njëkkee yëngal. waaw. waaw temps kii temps yooyu nag sama kii temps yi sama dafa demoon ba jaaxle ci man parce que. waaw. waaw feebaru dafa mën dafa ma doole léegi léegi mu ne ma soo soo jàppee bu julli. waaw. waaw da ngay jël kurus ngay tudd turu yàlla. ngay tudd turu yàlla waaw bul wax tur bi. waaw. Mhm. waaw turu yàlla mhm. euh, léegi moo koy wax di ko wax mu jékki-jékki hmm. feeñu ma benn jour hmm. waaw léegi bi ma feeñoo mu ne ma damaa bëgg ñu damaa bëgg ñu def benn affaire di nga li ngay tudd laa bëgg nga bàyyi ko mais man dama lay may alal hmm. waaw ba mel daal fi ma toog noonu damay xel ma di daal comme ay keesu xaalis yuy ñëw ci man léegi mais am na daal benn tànk bu muy dugal mais tànk bi dafa dafa dafa xaw a ñaaw ba nga xam ne damaa jékki dama jékki rek daw génn ci biti toog ci biti. ah dafa am tànk bu mu dugal. dafa am benn xaw a tànk bu xaw a ñaaw bu mu dugal. waaw. waaw ma xa ma ne xaaral lii daal wóorul te xam nga léegi ma daw génn mais nag bés bu ñu buñ bu ñu dajee ma ak yow. waaw. waaw dinaa la woon dinaa la woon am na cicatrice bu ma def ci loxo bi doo ko dagg. waaw jinne bi waxoon na ne. am na cicatrice bu mu def sa loxo. waaw ba pare am na fu mu toj sama bopp bi mais loolu bu ma wootoo bu koy gis mais fi mu ne nii mënoo koo gis. Ah, boo wootoo. waaw parce que dafa kër temps yooyu daf doon manifesté wu mais xam naa ci li muy tudd ci turu yàlla bi. Hmm. moo tax mu dóor ma dóor yooyu ba mbëkk garab yi fii amul lu ma def. keroog maa ngi nii nan la la dóoree yaa tëb mbëkk garab yi wala. waaw ba daal damaa wàcc léegi bi ma wàccee noonu. waaw. da damaa tëdd di noppalu léegi bi timis di waaye jot rek. Hmm. la ma attaqué rek ma tëb. bi ma tëbee sama mbutu néeg bi laa njëkk a bëgg. waaw daw dóor miir bi ma ma dóor miir bi sama loxo bi waaye ma ma dóor miir bi mbëkk benn garab tourné. Mhm. rek léegi waaw léegi waa kër gi woote. mais jour boobu maa ngi nit ñi ba une heure du matin. ñoo ngi waaw léegi ñu yóbbu léegi ci lañ ma teg ci benn saret yóbbu ma ci benn paa. Mhm, sëriñ. Mhm. léegi léegi bi ñu ba ci paa bi paa bi ci tali alxuraan ba ci yàgg. rek affaire bi xiiru léegi ci la paa bi arrêté taxaw. Mhm. waaw mu affaire bi xaw a mel ni comme gaynde bi kii mhm. bi xatataayu noonu. Mhm. paa bi arrêté. paa bi arrêté paa bi bi sëriñ la mais paa bi de fois dégg naa ñu ne day faj ay jinne xaw ma lan affaire yooyu. mais paa bi dafa arrêté. paa bi dafa mujj arrêté waaw ba démb. paa bi dafa mujj arrêté ba démb démb ci paa bi ñu mën a sama papa moo fa dem léegi paa boobu new ko kii temps yi mooy faj jinne du du léegi toog te bu ma ko naree faj jinne bi mën na mën na koo bàyyi ñëw ci man bu ñëwee ci man daf may yàqal. Hmm. paa boobu sama ñëw wax ma lool paa sëriñ boobu moo wax loolu. waaw moo wax loolu. Ah, ma ne ko dëgg la de li na dafa doon faj ay jinne waaw. waaye léegi instant bi nii maanaam euh, amul ñemeetul laal daal ndax bu laalee jinne dañuy ñëw ci moom. bu laalee day ñëw ci boobu tëb bi dafa soxor. tëb sa jinne bi dafa soxor. trop non man xam naa si mm-hmm. mais yow. waaw danga ngaa da ngaa ñëwoon sama luuma da ngaa ñëwoon sama benn luuma mooy luuma bi ma defoon euh, kii naka la fii. ñëwoon arène BCA ñëwoon nga. ñëwoon naa fa man man maa man maa doon yëngal foofu rek am na sa am na sa gars yoo xam ne xaj na bu ñu ma gisee sax ñi xàmme ma am na ku ci njool nii te buy dox di kii loxo yi nii. Mm-hmm. di balancer loxo yi. ku njool. Mm-hmm. waaw googu xamee na ma parce que man bi ma ñëwee mu man moom laa dénk sama téléphone ak li ma waroon a passé. ah dénkoon sa téléphone. waaw parce que man xam naa xam naa affaire bi bu ñu hmm. gisee rek. day yëngu am na luy xew. ah. Hmm. dëgg la yow. waaw. Euh, da nga am koo mosoon fan yi am na koo xeexaloon mu dóor la dóor yu metti te fayoo. waaye dóor yu metti tey sama yaay dafa xëy di ma laaj sa kanam bi lan moo ko def nii ma ne waxuma ko sax li am carrément parce que xam nga rek maire yi dañuy kii léegi mu ne ko non lii de dama cee rek loolu laa ko wax. Ah, dafa am koo doon xeexal mu dóor la ay dóor yu métti. waaw kooku dañoo jote ba léegi liñ jote sax ñoom ñoo ma tooñ de. waaw ah, ñoom ñoo la tooñ. ñoom ñoo ma tooñ mais bi may histoire kooku dafa mel ni sama loxo yi dañ koo téye bi ma paree damaa rus toog fi ma toog noonu damaa rus. a ah, après da ngaa rus allo. waaw. ma ne taman am na kàttan boo xam ne nii hmm. bu doon man ak man kese sama moroomu góor waaw sama moroomu góor du ma dóor mais fi ma toog noonu dafa mel la ñëw téye sama loxo yi ah yow am nga kàttan bi nga xamante ne euh, sa moroomu góor boo xeexee moom du la mën a door du ma mën a dóor me mais histoire bu ma am rek mu téye sama loxo yi man du ma jot histoire sax du ma kii yooyu mais keroog dama amoon problème rek ak kooku ah léegi kooku di la dóor te yow mënoo fay mënumaa fay fu ma toog laa toog léegi yow est-ce que xam nga keroog sa jinne bi moo téye sa loxo bi ba kooku di la dóor. waaw man kay <laughs> non loolu moom xam naa loolu moom c'est dafa yàgg ak man moo tax am na yu bëri yoo xam ne nii bu ko damay xam ne lii nekkul kese ko mhm. moo moo tax muy moytu sax. dëgg la. waaw damay moytu waaw. xam nga ne yow sa jinne bi soxar na am na doole du xam nga loolu. xam naa ko trop ak ma xam sax. parce que li ma gaañoon ci loxoom. léegi moom xam nga ne daf maa woo di daf ma woo di ma tëkku nee na ma bàyyi faj bi bu ko defee moom dina ma jox alal parce que maa ngi koy yàqal nee na bépp jinne bu ma ah, jàpp rek moom am na ci wàll daal moom am na ci moomeel waaw loolu la de waaw ba maa ngi moom ñu tëkkuwante ko waxee noonu maa ngi moom ñu tëkkuwante na waaw waaw ba maa moom ñu tëkkuwante wax na tey ne xaw jàpp waaw parce que nee na borom alal la waaw wax daal ay waxam toog xaw waaw loolu daal wax na ko. léegi maa ngi moom ñu tëkkuwante léegi yow fan nga dëkk dëgg-dëgg foo nekk ni man Mbour laa dëkk. ah yaa ngi Mbour. maa ngi Mbour waaw. Hmm, di nga mën a ñëw Dakar wala. waaw xam naa nag feebar bee tax feebar bi. parce que ah. bu feebar bi kii woon moom. dinaa ko mën a ñëw mais feebar bi moo tax. Hmm, confirmation bi. confirmation bi waaw mais bu jàllee moom. Hmm. bu soobee a dinaa fa ñëw fi mu ne nii nag maa ngi góorgóorlu comme di di ñaan di kii même woor même weeru koor sax weeru yàlla xam na ne fi may wax ak yow. waaw. waaw weeru koor sax dafa koy dafa ma koy iñaane suma ma su ma wooree ba ngoon mu ne ma lu tax ngay woor wala affaire yooyu xam nga xaw ma mais man ragalatuma ko man xam naa lan la mais man ragalatuma ko parce que damay tëdd fi ma tëdd sax. Mm-hmm. mu mu mel moo tëdd sama wet wala mu ñëw fees néeg bi wala sama noppi di riir. mu may hmm. tiital mais mais xam naa lan la waaw. xam nga lan la. xam nga lan hmm, xam naa ne moom jinne la waaw. ah xam nga ni jinne la. xam naa ne moom la de. waaw ah, instant bi yow doo mu nekk nii wooroo doo woor nii. tey de woor naa de mais démb moom bu ma waxee dëgg te yàlla tax wooruma. démb wooroo. déedéet waaw. parce que sa jinne bi nee na ma moo lay teree woor. dafa soxor affaire yi may def moom mooy yàlla xam ne dafa may metti ba des fois damay toog sax. sama rongo ji de tuuru quoi parce que xam nga. Mhm. waaw man moom melu woon noonu quoi. Ah. nee na ma nit ku baax nga mbokk yi dégg nga nee na ma nit ku baax nga waaye moom moo lay dafa lay bëgg a yàq da lay bëgg xiir ci lu bon. si ma lay wax nii nii nii nii nii nii. waaw. man maay sama taawu yaay di sama taawu papa. boo paree am na ñu bari ñu yaakaar ci man ma loolu moom xam naa ko. waaw. am na ñu bëri ñu yaakaar ci man mais loolu daf koy loolu daf koy dindi. su ma su ma dajalee benn affaire wala muy jéem a def benn affaire bu baax day day jékki rek dagg ko après damay rus mhm. waaw wala ma seex ak nit ñi teraanga nii day dem ba yàq ko hmm, day dem ba yàq ko waaw yàlla waaw yàlla xam na ko kii sëñ bi kii du ma ko seetaanee ni bu ma ko seetaanee ni day yàq sama àdduna jinne bi waaw bu ma ko seetaanee ni muy continuer hmm. day yàq sama àdduna day yàq sa àdduna day yàq sa àdduna daa walaay loolu moom xam naa ko hmm. waaw te turu yàlla moom waxu ci dara foo tuddee turu yàlla mu xaw a manifesté wu. Hmm. wala nga wala ngay am na ay dama demoon ba télécharger ay ayatul kursi wala kii yooyu. Hmm. su ma koy tari muy manifesté wu après ma bàyyi. Hmm. waaw. ci lu bon daal la muy xiirtal ay ah. du da lay xiirtal bon. ci bon rek waaw.